lundi au jeudi bu 16 jotee ñu gunge leen digtal leen émission bi nga xamante ni moom ngeen safoo muy les ambianceurs min ngeen ko saa su ne ci kasket yi ñuy ñëw ak yéen euh, d'habitude c'est de l'ambiance dañuy ñëw indi ay ndaanaan def ay live waaye tey lundi la mu nekk début de semaine boo xamante ni c'est un peu euh, compliqué rawatina fii ci biir 7TV euh, ndax suñu week-end ni ñu ko passé yow vendredi dal ci tiis ak naqar boo xamante ne nii Sénégal yëpp dañ ko bokk ay ak ñun muy suñu directrice de sunu patron Maimouna Ndour Faye euh, ñu dal ci kawam amal benn agression boo xamante ne jëmale nañ ko ci jëmmam mu jële ci gaañu gaañu ñu sant ci yàlla suñu borom nag njéem euh, bakkan xajoon na ci waaye njéem saa borom muccal na ko sant nañ ci bu baax a baax a baax loolooy waral tey ambianceur dina am beneen tournure on va changer de tempo changer un peu de casquette dal beneen ndaanaan bu féete ci beneen wàll boo xamante ni xëy na laal na ci showbiz laal ci musique waaye bu ñu waxee journaliste people rek xel dina dem ci moom bu baax a baax daan ñëw ci léegi léegi pour faire sa euh, sa présentation euh, lu jiitu loolu ma nuyu suma xarit suma mag alaaj Papa Ndiaye Thiou maa ngi laa mais Mara bëggee naa la ko waxee rek di siyaar ñëpp ñu ngi mm-hmm. di bëggee ñëpp ñu ngi wax nga dëgg yëf yi moom noonu la demee semaine bi passé moom yaakaar naa ni kenn ci sunu membre famille rawatina ci kilifa yi la tiis ak naqar xam nga ak euh, leen naan tolof tolof dal ci kawam ci àdduna la bokk. Mhm. donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi masawu ñi ñu woo ñëpp suñu nit ñu baax ñi. di masawu waa këram di ko masawu moom moom di wax ni ki def loolu def na lu ñaaw tooñ na gor tooñ na liggéeykat tooñ na jigéen du mën góor. tooñ na ko xamante ni këram liggéeyukaayam ruqam rek la toog jàppale nag ñi nga xam ne ñoo ko wër mu leen di liggéeyloo may mun la ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla fëgg sa bopp. Mhm. nga jóg ak jàmm ak képp ku tëdd yàlla na yàlla fëgg sa bopp. jóg ak jàmm di wax ni Mara tey li nga ko waxee rek. yëf yi moom day changé ndax ki ñu invité naanaan la boo xamante ni. li muy wax da koy teg ci yoon xam na ko ñeme na ko mën na ko. te bi yëf yi xewee jël na ci engagement boo xam ne dafa mel ni. dafa dëggal boppam ni moom nawleem lañ laal. dëgg la comme bokkal liggéeyukaay te loolu ku dëggoo koy def. ndax da koo jàppee ni boppam rek te bu ñëpp defoon noonu rek yëf yi ku ne da ngay sentir ñun benn lañu. di nuyu ajaratu Asia baax mi di leen bàyyee kàddu gi jërëjëf ci kanam aji Papa Ndiaye mu euh, baax mi maa ngi laa nuyu madame Diouf noo def. nu ma def nag moom mooy ñu ci kër gi. waaw euh, euh, mhm. ne wallaay mhm. kenn laam ne woon na boroom kër mooy kenn mbaar. moo taxoon mu ne ko bul gaaw a sëngéem. émission yi nga xamante ni chaque jour que jëfee euh, moo koy amal du lundi au vendredi Euh, doon loo xamante ni nag ñu bëri euh, ñi nga xamante ni euh, Sénégal lu bëri daf leen foog daf leen ump. Mm-hmm. moom nag leen koy xamal te it nag nekk nit koo xamante ni dafa dëggu. ci biir mm-hmm. ak ci biti. Mm-hmm. ndax bu doon ci caméra yi rek lay toog nekk di wax ay dëggam ñu mun a wax waaye ñun ñi nga xamante ni ñun la bokk njaboote ku ci nekk dina la woo ci bureau waxtaan ak yow nekk nag benn femme boo xamante ni elle est très ouverte. ci ñëpp nag amul kii mooy chauffeur bi. amul kii mooy vigile bi amul kii mooy animateur bi wala kii mooy animatrice bi ñun ñëpp la bokk yamale euh, ku ci am naqar rek mu euh, bokk ko ak yow moo tax it naqar bi ñoo koy bokk ak yow mm. lépp loo xamante ni force la lépp loo xamante ni courage la lépp loo xamante ni rek affection la ñoo la koy euh, ñoo ngi koy partagé ak yow di la wax nag ñu la benn yoon suñu xel yi du mës a mës a mës a ci yow ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax mais mën a ndox xel très bien merci beaucoup Asi ñu ngi bëgg jaajëfal téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel fépp rek nga xam ne te ñoom aas yi maanaam li ñuy wax naan balaa ngaa xam sa waay dëgg nga ne ci torof torof wala ci xet-xet. Mhm. man vendredi téléphone moo ma yee man li ma jot ci appel keroog dama ne no ndekete nit di nga nekk ci mbir te doo xam sax dëgg dëgg dëgg mhm. dayoo bi nga am ci doomu aadama yi. donc loolu dafay dafay jaadu ñu jaajëfal ci Sénégalais yëpp ci soutien bi ñu am ci ñun am ko ci kër gi am ko ci suñu patron. ay jaajëfal tam seen compassion parce que dañ ko bokk ak ñun naka lañ ko dégg rek ñoom ñëpp ku ci nekk bàyyi ci la nga nekkoon daw ñëw ci les locaux fii ci 7TV donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Papa Ndiaye wax na ko sànq ci ay njëlbeenu kàddoom ki ñu dalal tey c'est un grand monsieur ci ci ci wàllu média rawatina ci côté people ki ñu dalal tey mën naa wax bokk na ci ñi njëkk a tax sénégalais yi découvrir lan mooy people au début mën naa wax c'était un ñu bari dañ ko doon clash. dañ doon ci kawam ba tey de loolu léegi sax tane na. parce que bi mu bi ñu koy soog a ràññee. Sénégalais yi xamuñu woon dëgg-dëgg lan moo nekkoon people donc boo waxee dañ naan day yàq der wala dafay duggu ci vie privée jàmbur alors que people desk la ci information parce que nit bu nekkee célébrité nit ñi xam ko dafay laaj ñu koy suivre di xam dëgg-dëgg fan lay toll ci dundam ak ci yu demee noonu waaye fexe na ba marqué empreinte am il a su s'imposer à ce que tey euh, mu gagné le grand respect bi nga xamante ne public sénégalais bi moom la ñu am ci moom il se nomme de son vrai nom ñu gën koo xam ci taalibi Serigne Saliou bi loolu boo bokk ci benn ci aspect yi ma ko nawee ndax moom lu muy wax Serigne Saliou li ciy jiital Euh, ak bëggam ci Serigne Saliou dootuñu ko naatable c'est un plaisir nga fekk suñu suñu biir tey moom dañuy wax doyen Tange c'est un plaisir ñu dalal la tey ci ambiance remercier la aussi ci disponibilité bi naka ñu woo rek nga bàyyi liggéey bi ak li jamono di xat-xat yëpp ñëw si ñu ñoo ngi kontaan. waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla tab ñi ci leer suñu la ak barkeem di saali Saliou Mbacké ba ñu mën a teew fii tey toog ngir jàkkaarloog àdduna mën ñëw déglu amaana nag xëy na yàlla moo ñu tànn jagleel ñu lii nga xamante ni moom la ñuy def moo tax tey ñu toog fii xëy na mënoon na ko jagleel keneen mu toog fi mm. du suñu compétence du suñu mën-mën du dara maanaam ci lu ñu sabab lu dara yàlla jàpp ci di profité aussi di faire honneur aux dames di nuyu soxna Asi mm. ginnaaw loolu di la féddali colère yow Mara je crois que maa ngi lay soog a gis mm. da ma woo téléphone wax ma li nga xamante ni tey dafa soxal askan bi. donc euh, dama dagg li may def ñëw. dëgg la di nuyu aussi ki nga xamante ni je peux dire que c' est mon frère c' est mon compagnon de guerre c' est mon complice. muy Papa Ndiaye parce que 2003 2024 ça fait 21 ans. ñu mm. xamante musuñu werante musuñu xuloo. lu mu def ci lu baax fekkee na lu mu def ci toj toj aussi fekke na ah am na toj toj yoo xam ci moom ah, soo compté woon cent loolu dama lay fay soo compté woon cent uh-huh. jàppal ni vingt yee baax non temps loolu moo xoolal Mara tey damay pingi sama pape toj toj Sénégal pape toj toj Angleterre ah. pape toj toj France pape toj toj Italie pape toj toj Espagne noonu nañ bàyyi noonu rek ah Papa Ndiaye <laughs> gis naa ko la xam tey gis naa ko la xam non mais xoolal mais Mara tey li ma ci gën a neex uh-huh. tey ndaanaan moo ñëw Oly Fadri li mu lay wax mhm. du ñu werante du ñu xuloo parce que ndax mhm. da nga njëkk a wax lu am solo mooy people man bi ko temps di commencé def mhm. dëkk bi di yëngu dama ne ñuy comprendre ñu temps waaw fekk ne sénégalais moo mel noonu boo créé lu leen jaaxal da nga leen di jommal mais de fur mesure ngay dem dinañu comprendre ne kon kii lii la ñu bëggoon a wan mooy la am États-Unis ci ci ci art ci ci ci célébrité yi li am France ci célébrité yi ci liggéey bi la bokk mais man dama doon man yàlla bu mu parce que ñun tamit nit lañ comme ñëpp. Mm-hmm. mais sénégalais yi comme li nga wax rek comprendre ñu woon yëf yi. Mm-hmm. mais nag tey ni mu ñëwee moo ma neex. Mm-hmm. dafa jël engagement bu rëy. te loolu pour man nit loolu lañ koy dayee kenn du ko lekk. bu taxawaay jotee nga jóg taxaw sa noow nawle. ndax dañoo bokk ñoom li ñuy def. moom mooy mun a mu mel ne nag ko bokk ak moom ndey ak baay. ma bëgg man man bëgg xam nag Sénégal fan lañ jëm maara ak ak ak ak jafe-jafe réew mi politique. tey temps faaw leeral ñu lool de. mais nag li tax mu garaaw xamoo ko de. jaar na ci animation de. waaw man ma xam lool <laughs> man da xaw ma woon tey lañ ma ko wax de. dinañ ñëw ci kanam dañuy dugg ci ci ci ci ci carrière Tange Tandian. Mhm. avant avant Sénégalais yi di ko découvrir dëgg-dëgg loolu yëpp daañu ko waxtaane mais dañu kon ne juste ci lancé bi ñu nekkoon. Mhm. laataa ñoo ñëw ci loolu. Euh, Tange bi nga bi nga xëyee vendredi matin comme ni ko sénégale yëpp yëgee nga yëge ko noonu yëg ne dal nañ ci sa concert koo xamante ne yéen a bokk métier mu ngeen di def euh, déjà sa première réaction ak jàngat bi nga njëkk am lan la woon.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 dañ fi jàpp ay nit de mars 2021 à 2024 qu'est-ce on ont fait mmh. ils ont tué plus de cinquante personnes kan moo leen rey xamuñu kan moo wootee ki ñu gëm ñoom mmh. ki ñu topp ñoom ki ñu topp dafa yàgg taxaw biir këram teg ay caméraam ñëpp di ko seetaan muy yëkkati ay kàddu di ko wax gasta gasta la njëkk a yëkkati mu yëkkati le combat s'annonce mortel dans mortel qu'est-ce qu'il y a mmh. mu ne dem naa sama bàmmeelu baay ziar naa ko dem naa tàggu sama yaay diw di nga ma rey mbaa ma la ça veut ci kilifa nga ne da nga bëgg a jiite réew. ki taxaw ne ñi fi toogoon dañu leen waroon fusiller rey leen ba ñu dee doo ci am bàkkaar yàlla moo ko wax yonent fi moo ko wax te nga ne da nga aspiré diriger Sénégal mais Sénégal boobu muy diriger am nga ci wàll am naa ci wàll. donc war naa ci wax sama xalaat su amee ay nit yu topp ci moom nag daf leen waroon yar xam leen ni que man mii kat maa jël position pour diriger Sénégal moo tax ñuy wax ci man def na 15 ans impôt yi demee kenn musul tudd turam on le connaissait même pas. Mm. donc il que les Sénégalais se ñeneen ñi aussi respecté doomu aadama yi. Mm. ku jëkk wax benn analise wala benn fait mais mm. may mun a ci liggéeyam la waxee. Mm-hmm. toogul salon waxee dafay joxe information donc fait yu ñu relaté moom la relaté. Mm. plus de cinquante personnes ñoo fi ñàkk seen bakkan. ñaata nit ñoo dem au chômage. ñaata Auchan la ñu taal. ñaata station Total la ñu taal. BRT yi tojuñu ko. ay ba ay biens privés sax. kan kan moom xaalisu BRT bi du sa xaalis. dëgg la Macky Sall moo ko moom. Mm-hmm. sa xaalis sa taxe sa impôt la ñuy yokkaat moom lañ koy defaree jeewaat. Mm-hmm. ñoom ay sauvage des âmes que je peux appeler parce que sauvage weesuwul. yow li nga moom sa alalu ndey sa alalu bàyyi sa ñàkk ñu koy defar nga ne da koy yàq. c' est pas cette révolution qu'on veut au Sénégal. Mm. le panafricanisme c' est ce qu'il venait de montrer. nit soo bëggee jiite réew dafa ngay am discours bu responsable soo amul discours bu responsable dañ la koy ñemee wax ñu dem ba semé benn terreur ci Sénégal ñu bëre ragal. xameetuñu kuy journaliste xameetuñu partisan xameetuñu chroniqueur nga gis bay ay journaliste takk ay bracelet di wane seen identité quelque chose qui est contre l'éthique et la déontologie mm. ku nekk am nga sañ-sañu far fi la neex mais ci sa corps de métier waroo wane fi nga far information bi ngay wax murid bi da koy seetaan waa APR dañ koy seetaan tijaan bi da koy seetaan catholique bi da koy seetaan kon yow waroo ko wan ni man fii laa féete ñu dem bay gis loolu ñëpp noppi te souvent dañu ne la presse est bien encadrée par qui CORED mooy par qui SYNPICS syndicat des journalistes par qui convention des jeunes rapporteurs par qui AMPERS qu'est-ce qu'il sert dans ce pays. kon seen taxawaay dafa des daal su ma la déggee. Maïmouna Ndour Faye ñaata yoon la jot fi ay menaces. Mhm. bi mu taxawee relaté ñii ñu libéré on a dañu libéré trois cent quarante quatre détenus. Mhm. président Macky Sall bu jiite Sénégal moo toog Alaaji Assane Gueye jouru Korité palais de la République ñu ne ko les détenus politiques mu ne détenus politiques amul Sénégal moo ko waxaloo ko. fi jàpp ñëpp ay ay criminel ñu saccagé ñooñu lañ jàpp ci kaso bi kon suñu libéré duñu wax ci suñuy politique li Macky waxoon la ñuy wax ñu foog ni fa la yam mu dem ci mbaxane doone benn muy soixante-dix-huitième assemblée générale des nations unies journaliste France 24 posé ko question mu ne ko les détenus politiques nee na ko y' a pas de détenus politiques au mhm, que des terroristes des gens qu'on a euh, pris mmh. sur mhm. des euh, en complicité avec des entreprises terroristes des saccageurs des pilleurs mhm. ñooñu lañ jàpp ci biir kaso bi mais Maïmouna Ndour Faye su toogee ñi libéré ne Macky Sall moo ne woon ay terroriste lañ jël jàllaxaat leen ci dëkk bi li Macky Sall waxoon la wax mhm. ñooñu suñu commencé ci ay Facebook di menacé Maïmouna Ndour Faye j'ai vu benn genre connard boo xamante ni ngeen baal ma ci kàddu bi du ma ko jàppee doomu aadama parce que man mbaam laa ko jàppee xaw ma lan santam sa sant la yor ba pare teg ci Touba naan Maïmouna Ndour Faye jógooguñu si moom suñ jógee ci moom dina xam lépp am na ñaaw na ñaaw na mhm. du yoon keneen ki taxaw ne ko kii mooy xaw ma lan Thiaga avenue de la République est-ce que am na carnet de prostituée suñ ko waxoon ndeyam dina ko neex. dëgg la dafa mës a fekk Maïmouna Ndour Faye muy na ko CORED gis na ko SYNPICS gis bi ñu def pour dénoncer les menaces par rapport aux journalistes. personne ne l'a léegi ñu xaar ba Maïmouna Ndour Faye deretam tuuru ñi naan ay communiqué may wax Bamba Kassé di xëy suba teel di def communiqué naan waaye Maïmouna Ndour Faye on était enquêté elle est hors de danger. ok est-ce que suñu jëloon seen matuwaay ñooñu du ñu reculer wala kii xam na ni que ñii kat seen corps de métier dafa solidaire. Mm. toog ba ci ngoon si neen dañuy def rassemblement boo xamante ni ñoo ngi koy def buntu 7TV à quoi ça mm-hmm. xam nga lu ñuy def may mun a dañ koy ñaanal fa mu tëdd mu jóg fu teg mm-hmm. incha allahu rabbi daf fay jóg. su dellu soitee bu teg ci plateau dolli buum ca mboy mboy ba. Mm-hmm. menace ragalalul kenn xam nga lu fi des nag. état dafa am ministre de am justice. ñu kii assure tout. pour ñun suñu taxe la may may liggéey fay leen sama taxe. dinaa dañ ko war a assurer dinaa ñëw yow ci responsabilité état ak lu mel nii lan moo ciy doon ay solution ba du amaat asi euh, lan nga xalaat ci euh, préjugé yi nga xamante ne ñoo koy teg ci noonu euh, a Ndour Faye Olof Njaay dafa ne wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fu mu jógee la cosaan mm-hmm. parce que soo demee xalaat benn wax di ko teg ci ndoddu nit ki dafa fekk yow noonu nga mel wala sa waajur wala ci noonu nga juddu tout simplement Maïmouna Ndour Faye c'est une brave dame ñooñu di wax loolu Maïmouna naan toog wu yaay dañuy toog tux yàmba naan sàngara toog nga romb ñu la grand may ma 1000 francs may ma 500. mais mu ne mu ngi ay lampo waaye moom dëgg la ubbi bërëbu liggéey keroog dama dem wàcc benn banque bu nekk CBAO Gédo fekk leen fa groupe chaque jour fa laa leen fekk mu ñëw garaa xaw ma nangal ma ne ko sëñ bi mu ne ma naa ma ne ko ñii dañuy laver oto 1000 francs laa ko fay pour mu fomm sama oto ñëwal nga laver oto bi sama xaalis du mu ko may góor bu ne léegi dëgg la ku dara jotul travailler dëgg la ñooñu ñooy taxaw fii ba jàng jotee jànguñu. Mhm. ba wuti métier jotee wutuñu métier yaruñu leen. Mhm. ñu toog ba màgg foog ni que yàlla day wàccee xéewal seen kaw. bëgg a jël mer boobu teg ko ce sont que des mécontents ce sont que des haineux. Mhm. te yaakaar naa ne ñoom yàlla dafay gën a bonloo seen xol. donc préjugé bu ñu teg ci kaw Maïmouna Ndour Faye amul kenn ci ñoom ku la nee mës naa fekk Maïmouna Ndour Faye fii wala mën naa. dëgg depuis euh, je crois que 2012 si fekk on ci Covid. ci la ma soxla woon woo fii ma ñëw toog am projet bi ñu waroon def yàlla dogal sottiwul. Mm-hmm. parce que man boobu tooguma woon. je voyageais beaucoup. Mm-hmm. ma ne ko je peux pas des engagements avec toi parce que man mën naa toog ba 18h léegi jël billet dem sama yoon. la voilà. mais taal sànq sa biir wax nga ne. li dal may mun a ñun bu ñu bettul yow yow bu ñu bettul bu ñu bettee ñun yow bettu la lu tax loolu. waaw mais bettu ma Cheikh Yérim fii la toog ci seen biir kër ci seen plateau litteel leen. Mm-hmm. ay turu nit. géolocalisation bi ñu joxee seen numéro oto seen numéro lépp dañuy dal seen kan moo jóg wax ci. kenn je pense que je pense que on peut Tange Tandian 2021 ba tey je reçois des menaces. Mm. Ah. un jour jël nañu sama numéro téléphone dugal ko seen benn groupe mais y' a un renseignement bi ma woo ne ma Tange dugal nañu sa numéro mais dama pare ci saa si appels yi commencé takarnaase. ñu dina woo un jour j'ai presque cent dix huit mille appels dama dem ba ci digg bi soo wootee dama lay naan allo gaawal Dakar ma Dakar. et eh. daqaaral wala ma daqaar. parce que xam nga ne dañ lay saaga. soo menacé ma ne la fu la neex foo bëgg a wool ku la neex nga ñëw di def heure bu la neex fexeel nag ba ñëw ak ñaar wala ñett nga xool ndax di nga bakkan yow. kon temps da jàpp ni may mun a médecin après la mort moo mais après la mort mooy li xew Sénégal soo fi nekkee ñi xas la saaga sa ndey soo dee ñi sa kay 4 millions 3 millions di la ko jaxale. il faut qu'on arrête cette hypocrisie hypocrisie boobu lañ fi gis ñaata nit lañ fi saaga man bu mu dee quand j'ai vu des gens prendre le micro et parler sur Thione Seck mais j'avais honte. waay waay parce que toog naa gis ay kàddu yu ñaaw yu ñu doon teg ci kaw Thione Seck. Mmh. yaayu Cheikh Yérim Seck ba mu deewee barki démb Cheikh Yérim Seck manqué wul moyen quand je vois des gens défiler ay 4 millions jaxal 10 millions jaxal c'est du naaféqisme waay. waaw arrêté dëgg la gisal la on va on va prendre les en témoin Tange wax léegi léegi je pense que assez am na ci ay éléments surtout ci euh, jàkkaarloo Maimouna Ndour Faye euh, euh, Pape Maguette su fekkee baax na nga am ñoo xam ni dañu waroon rey ay personnalité affaire attaqué ay personnalité clairement identifiée ñu nekk ci réew mi. yor da déggoo li ma lax wax dama ne téléphone yi bi ñu waxee déglul baax ne ma la wax. parce que ñi ñu jàpp bari na téléphone yi ñu jël bari na téléphone yi bi ñu waxee am na personnalité yu bari dëkk yow mii yow mii par exemple dans les médias yow ak man ak Madiambal Diagne ñi ngi woon ci liste bi. gars yi ñu ngi woon suñu loolu moom xam naa ko non non ñu ngi woon ak suñu numéro oto. Hmm. ñu suñu géolocal. am ñoo xam ne dañu waroon rey ay personnalité affaire attaqué ay personnalité clairement identifiée ñu nekk ci réew mi. attaqué da déggoo li ma lax wax dama ne téléphone yi bi ñu waxee déglul baax ne ma la wax. que ñi ñu jàpp bari na téléphone yi ñu jël bari na téléphone yi bi ñu waxee am na personnalité yu bari dëkk yow mii yow mii par exemple dans les médias yow ak man ak ma Madiambal Diagne ñi ngi woon ci liste bi. gars yi ñu ngi woon suñu loolu moom xam naa ko non non ñu ngi woon ak suñu oto. Hmm. ñu ngi woon ak suñu géolocal. am ñoo xam ne dañu waroon rey. te je pense que émission bi ëpp na 3 mois de. est-ce que état du Sénégal daf ci jël responsabilité. waaw est-ce que corps euh, correct daf ci jël mm-hmm. que ki nu mu tudd Simpix daf ci def communiqué. et pourtant menace la yu réel parce que lii yi Cheikh Yérim Seck wax def nañ ko ci ay këru nit. dem nañ kër Sëñ Mbaye Thiam ko. Mm-hmm. kër Zator Mbaye lakk nañ ko. corbillard jumaa sacré cœur lakk nañ ko qu'est-ce que ça annonçait gisoon nañ ko bu yàgg mais pourquoi on laisse ces bâtards venir menacer les gens Papa Ndiaye da nga menacer kenn. jaajëf man Pape Pape Alé Niang chaque jour mu teg ay caméraam toog wax li ko neex ci ay góor te kenn jógul attaqué ko. Hmm. Babacar Touré Kewulo amul lu mu fi waxul ay sos ci kaw ay doomu aadama kenn jógul attaqué ko. mais est-ce que tamit ñoom nekkuñu di wax seen xalaat comme yow. waaw mais bu mu waxee xalaatam comme man. Mhm. lu tax ñi mu doon waxal seen xalaat jóguñu attaqué ko. lu tax ñu topp ci ginnaaw parti bi ñu mhm. dissoudre. parce que Tange li muy wax moo tax ñooñu am benn liberté. ci mhm. seen ci seen i propos am liberté d'expression ba lu leen neex waxtaan dara man fekk newuma Ibra Degen ma xaali Mor Sodiague moo leen. taal laa fa def parce que moom laa nga gëm moom ngay wax de ki ñu gëm moom la teg kon donc ñoom ñu bokk ci ñoom ñoo doon def loolu da gis kenn ci militant bu jóg wax ci. da nga gis société civile bu jóg wax ci. Alioune waxu ci mu Moundiaye Cissé waxu ci Birahim sekk waxu ci. kan la ñuy wax élection parce que mooy seen gagne-pain fa la ñuy lekkee weccet. fa la ñuy demee Nations Unies ñu jox leen ay weccat ak ay koppar ñu mën ci jënd ay kat kat di takk ay ñaareel. Mm. il faut que les Sénégalais se mm. ce sont des gens qui veulent vivre sur le sang des pauvres Sénégalais. Mm-hmm. li ma naan rongoo ñu baadoole yii. Mm. muy niinal seen ay ceeb. ci kaw lan ay fen yu tooy xepp. ñu leen di woowee kilifa sol costume sol grand mbubb yori jabar yori doom rusuñu. ñu toog di wax ñoom ñu toog di wax xam nañu li ñuy wax suba ba goon dañuy fen sur la personne de Ousmane Sonko yow nga am personnellement ay compte ak parce que yoo xam dañuy jàpp ne Tange dafay acharné wu sur la personne moom ñu bari bu ñuy wax sax mën nañoo ragal a jaar ci tur mais da jaar ci digg bi wax Ousmane Sonko loo bëgg wax nga ko à part sa liggéey da am beneen beneen kii personnel j'ai pas de compte personnel avec qui que ce soit sur terre mm choisi un métier qui est le journalisme mm journalisme mooy lan relater les faits faire des analyses faire des investigations mmh. xëy na man nag jot bi ma am pour def investigation yàlla sàmm bi ma sàmm ba fen mënul dugg sama nopp manipulation mënul dugg sama nopp ba lépp lu waay wax damay jël sama xel gëstu ko ay fait la contre mmh. c'est quelqu'un qui a aspiré à diriger le Sénégal mmh. il va être président je suis sénégalais. Hmm. ki may jiite dama war a xam kan la. c'est normal. je veux pas avoir un président bi taxaw di wax lii tey suba waxam mu weddi ko kan moo fi taxawoon ne jeune bu màgg entraîné ba am doole politicien woo la kaay ñu xeex. Hmm. nga génn ci bit ñàkk fulla la. moo ko waxoon. kan moo toog ne ndaw yi ndax pare ngeen pour dee. Hmm. pare ngeen pour xeex kan moo ko wax du moom. c'est contradictoire c'est faux. te li tax njëkk dugg ci moom dafa am benn problème bu éclaté digganteem ak moom benn xale bu jigéen je prends que affaire u citoyen la. mu xëy bind ci page Facebook am liñ may tuumal xaw ma fa dew ma fa. c'est donc son cas euh, euh, Adji Sarr. voilà mu ma fa dew ma moo ko bind ci kilifa. mu toog point de presse ne dem naa fa vingt et une heures du ma jiite. un menteur ne va jamais me diriger. gëmuma fenn dëgg laa gëm. kooku kooku lim ma waxaat damay taxawaat gëstu ko. tey soo ma waxoon benn wax suba mu dañ suba doo ma waxaat dara ma gëm ko balaa nga ma koy wax dama koy gësu ji ba gis ko ma dajale ay fee yu dul jeex yéen ñëpp teg ngeen ci seen bët kenn ci yéen mënul taxaw ne li waajoo ji ngeen di wax Ibra Degen Maxaali Mor Tojange. noonu nga ko tudde Ibra Degen Maxaali Mor Tojange amatuma lu may wax ci moom parce que il est derrière des barreaux ba su génnee ma jaaraat ci turam. ok li mu fi defoon rek laay relater. kon donc kooku du sama ndey du sama baay ëpp ma fit ëpp ma doole sama xam-xam kenn mënu ko teree wax soo jëloon baa ko teg ko sama du ma bëgg wax dama koy wax mais ak lii dal may mën a tu penses pas yow aussi tu es exposé li li ñu dégg Cheikh Yérim wax ko mais c'est pas Maïmouna seulement qui exposé Tange Tandian exposé ah. Maïmouna Ndour Faye exposé Cheikh Yérim exposé Moustapha Diakhaté exposé exposé Madiambal Diagne exposé Aliou Sow exposé exposé kenn si exposé uus balaa ngay jeexal ma dóor la une balle dans la tête je m'en badine pas. ah bakkan du jaay fenn. self defence dañ ko wax. jàng naa ko. Mm-hmm. def naa boxe def naa taekwondo def naa kung fu xam nga ci dara. Mm-hmm. te doo ragal nag Tange buy wax sax nga xam ne. déglu ma <laughs> aw ma sens interdit ci Sénégal damay gaare suma oto di dox ci bedd bi ku ma jógee ne ma nangam sangam te sequma koog yow je te dans la tête légitime défense la j'ai lancé cette alerte au ministre de la justice j'ai lancé cette alerte au ministre de l'intérieur. Mm-hmm. vous êtes là pour assurer la sécurité des circulations et la circul la libre circulation des Sénégalais et de leurs biens su ñu demee nag ba loolu amatuñu ko su ñu demee tey ba ay agresseur di sol ay yëre gendarme taxaw ci tali bi di arrêté ay oto. nga foog ni gendarme moo la arrêté ba noppi ñi daan lay fouillé daan lay agressé ça s'est passé bërki démb. fii ci route nationale bi. ban dëkk la ñu nekk. loolu fan la ba route nationale la. sortie 8 autoroute à péage bi.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 te dootuma arrêté benn yoon ci guddi mais Mara wax na dëgg parce que yenn saa yi koo ci laaj pièce sax danaan day foog ni yow da nga ko yeb. Mhm. te pourtant nit bu la laajee si pièce. Mhm. mais war na la woon moom. taxaw rek dafa bëgg nga identifier wu. xam yow ko taxaw ci mbedd bi. dëgg la de mais on a vu beaucoup de gens sol ay yére douanier di naan ay douanier. di wax ni dëgg la donc dañuy assurer sécurité nit mhm. ay yi. waaw matériel la. nañu may mun a Ndour bi muy naan ay affaire ñu ngi koy menacer dañu waroon garanti sécurité am. waaw parce que sénégalais la nit la. Mhm. moo ëpp njëriñ BRT. ba pare tekki dara ci réew mi boole ci. voilà dëgg la ah, bëgg mu dugg ci seen nopp jël responsabilité di attaquer. je ne serai pas une victime collatérale d'un quelconque combat. je ne serai pas une victime politique dama bëgg mu dugg ci seen nopp kuy jël responsabilité di attaquer mais nu mu tudd wala di ma attaque nanga nga teel a jóg. te na préparer préparé wu maintenant l'intimidation là ça ne marchera pas ça fait quatre ans que dans page pages tous les mois ngeen saaga ma euh, waxal ma sosal ma lu dul dëgg lu nekk ngeen wax ko du ma du loo xam ne ça ma ça me perturbe ça ne me perturbe pas voilà ndeysaan ça lui perturbe wax ni jàmbaar la parce que boo xoolee wax na ko ça fait quatre ans 2021 ba léegi muy muy muy bu 2020 sax je peux mm. muy muy dund ay ay intimidation ki menace lu ne lu ne ñu tuumaal ko lu ne ñu waxal ko ko te terew terewul mu taxaw di gérer li ñuy gérer. mais maaraa li temps ci def nii. Mm-hmm. lan moo tax yeneen ñu mu bokkal métier defuñu ko comme temps ni ñu koy defee. lan la lu xew daf jubóowuñ wala dañ ma yéene may mun a lii wala lu tax ñu téye seen bopp te suba am na keneen. Mm-hmm. lu tax loolu. ragal te ragal yàlla. ragal. yab mm-hmm. nit ki soo nekkee ci benn métier ngay woote solidarité je crois képp koo xamante ne laal nañ la ci yow da nga war a jóg. Mm. mais fii lañ jàpp Pape Alé Niang ñëpp xam nañ ko ko jàppee def diffusion de fausse nouvelle daf ñëpp information ñun ñun li ñuy def investigation moom ko am. Mm. mais éthique ak ñu may. Mm. yoon moo ñu may ni que lii war nga ko génne lii waroo ko génne et pourtant da ko moo fi mm-hmm. dañu jóg. kan moo jóg. buntu wal fajiri gars yi ñu génn. man de jóguma wal boobu tam bëggoon ñu tëj ko ba caabi dama ci loxo. ah bon yow ah. Tange que nekkul da am ay ay ay. ay contentieux ak yeneen gars yi aussi. parce que Walf bi ñu ko tëjee télé yëpp ci doon wax. journalistes yi ñëpp a jóg buntu wal fajiri ñu def rassemblement et tout. mooy li may wax naaféqisme bi ak fumiste bi. ak fumiste bi y a du et du fumisterie man du ma mës a féministe ci kenn du ma wax dara ci ginnaaw nit par di ko ci kanam ah. su ma la bëggee bëgg naa la su ma la bëggul bëgguma la soo nekkee ci yoon yaa ngi ci yoon soo newul ci yoon newul la moo taxoon nga bëgg ñu tëj Walfadjri Walfadjri ndax ñu tëj ko balaa ñu koy tëj Moustapha Diop lu mu def dafa def annonce en direct Walfadjri ne ministre la communication yónnee nañu mise en demeure pour que ñu arrêté li ñuy def c'est interdit tàkk-tàkk kenn du ko teg ci ay télé. wane ay manifestation du information. ma ne wane manifestation ay tàkk-tàkk amul benn sénégalais bu naan lii kat jàng naa ci lii wala jëriñ na ma lii. les pays les plus développés tu as été en Angleterre tu as été en Europe. j'ai fait stage à Télé Sud j'ai un stage à France 24. waxuma la sax ay affaire crime jam nii rek. dañ koy relater. mais duñ la won image bi. wala fajiri di ko wane. ñi ñëw couper seen signal. ba ñu couper seen signal lan moo ci un avocat inscrit au barreau de France nee na il est le président directeur de la télé toog publiquement te carte d'identité sénégalaise am muy drapeau national du Sénégal mm-hmm. xotti ko ne dama koy déchirer je renonce à ma nationalité il a insulté tous les Sénégalais mm-hmm. ki saaga sénégalais yi lu muy doyee licence au Sénégal mm-hmm. et pourtant ba ñu tëjee licence am presse bi ko doon jàppale manifestation amaat na la suite da ngeen teg ay images yooyu lu tax tegu leen seen TV daf ko teg TFM daf ko teg kon xam ngeen ni su doon lu baax ngeen fekk ko hmm. kon nag mooy li ma la wax naafeqis ba la dañ lay faral ci fen hmm. li maam Ndiaye Savon wax barki démb dama ko ci kontaan damay tooñ ba xam ne tooñ naa samay xarit di ma faral te xam ne ñi maa tooñ loolu mooy Sénégal dañu waroon tëj teleem ba damm caabi mais temps yaakaaroon loolu nga wax noonu dafa nànk dafa am lu ñu wax hmm. ñu ne y a de famille qui travaillent là-bas am nañu seen métier nañ dem y a combien de chômeurs station a a combien de gens qui n'ont pas encore retrouvé wala journaliste dafa nekk au supernaturel wala dañu bind si alxuraan journaliste mooy nangam sangam on est des citoyens sénégalais lambda tout le monde mm. profession la mm. suñ ko wàccee wàcce nañ ko ay nitu simple lañu on n'est pas au-dessus de la loi gënuñu fi ma sàmb gënuñu fi ma demb soo xoolee tey publicité bii gars yi di def mooy euh, waa société pétrolière bi ma noppee yàq mm. laa tàmbalee ñàkk ñàkk bi am Sénégal prix yu yokk yi ñoom ñoo ko créé avec ces politiciens là charognards ñoo koy fayaat ñooy yàq ñoo koy fayaat mais temps bu fekkee ku ku waxul dëgg mm. say ñooñ faral la mm. ak ak opposition pouvoir kon image politique Sénégal fan la jëm xam nga tey man su ma bëggoon ñu faral ma mm-hmm. buntu bu gënoon yomb mooy ànd ak ñoom waa kër Ibra dégg ma xaali mm-hmm. da wax léegi benn xam nañu audimat bi ma am am naa porteur de voix la mm-hmm. su ma ànd ak moom léegi ñu koppar express la ma am ay laay yu bëre ñi may tàcc guddeeg bëccëg waaw nga xew je préfère lekk un ci dëgg di lekk ay milliards ci fen est-ce que tu comprends. amul lu may ragal. ñu fi changé seen veste yëpp xam nañ leen. dem nañu ba manifestation lu neex waa kër Ibrahima Dégg ma xaaral lañ wax pour ñu attaque lii yëpp ko indi mooy suñu soutenir may mën a ndool fay dem ñu doon les prochains cibles. yow yow kon da jàpp ni maanaam ci mbirum may mën a fay bi lii xew ñu si bari li tax ñu noppi mooy dañoo ragal li dal may mën a dal leen. maquillage la rek make-up lañ jël teg ko seen ba ci politicien fenkat yëpp ñaata communiqué laa gis ba ci Moussa Diop bi nekk ci kasa bi ñu ne soutenons Maïmouna Ndour Faye kañ la soutenir Maïmouna Ndour Faye ba ñu koy menace mu ne ko soutenir ay Khalifa Sall communiqué na ci Maïmouna Ndour Faye Idrissa Seck bind na ci Maïmouna Ndour Faye euh, prébi taluñu sax Maïmouna Ndour moom ci boppam waxal na ko boppam du ma nekk benn victime euh, collatérale donc arrêté gëmuma ci benn communiqué c'est que du naaféqisme tout simplement ah euh, Anita euh, Diop dégg nañ ko fi. Mhm. et puis wax nañ ni que Maïmouna la je pense que seetaan nga euh, émission bi nga xamante ni euh, am na ku mu ko amaloon ba révélé nga xamante ni moom lañ ko wax lan nga xalaat ci loolu. ñooñu ci fen lañ dëkk. Anita du ma leen ko révélé mais xam naa ne du Maïmouna ab góor. Hmm? Tange yow mi xam nga Anita. je le nag li ko ëmb ci réew mi bariwul de. non dama lay wax dara de kii <laughs> mais man lenn moom a jaaxal Anita j'ai ak lui. dégg nga et c'est un homme. mais c'est un homme ku mu neex jël sa identifiant ñu ne ay Maimouna Ndour Faye la xamuñu sax kuy Anita. mais Tange man damay gis tout le temps ngay wax day fen day fen day fen mais ñoom li ñuy wax ñoom am da nga yaakaar ne amuñu ci droit ñoom. waaw waxuma la waaw mais soo waxee fen da nga koy nangu. seen garabu garab mooy fenkat bi nekkoon fajar chaque jour mu fen wala du fen waxu fi am na ndomb boo xamante ni ku ko yor doo dugg kaso. <laughs> xëy dugg kaso duggul kaso. <laughs> xëyu fi taxaw ne Ibra Degen ma xaali moo yoroon télécommande bi nga xamante ni moo doon zappé ci biir hôpital mm-hmm. ku nekk commande nooy téye télécommande mm-hmm. fen la wala du fen mm-hmm. damay laajte rek dafa fi ojoo taxaw ne Ibra Degen ma xaali lu ñu koy tuumal ci euh, Adji Sarr moo ko def mais moom mi ngay wax taaloon nañ fi otom de tange waaw yow dimbale ma nga naan taaloon foto <laughs> taxu fi naan xaw ma lan euh, Ousmane Sonko dañuy Covid moo tax ñu tëj leen moo tax foog ñu génnee seen ndax bi foog mënootuñu dem Maroc mënootuñu dem fen waxu ko ba mu ne gis nga barki démb bu Youssou Ndour la ba mm. kooku mm. na ma wax li ma gëm man mm. février ku dugg ci bureau de vote yi di nga fa fekk bulletin Ibra dëggeen ma xaaj le 25 février élection am na Sénégal léegi ndax la nga wax ci problème oto bi. kooka la moom mi ngay wax noonu oto yi dimbal ñii di jël seen ay affaire gisoo dof bi nekk fële nu mu tudd seen bataar boobu nekk fële France. ay waay. kooku mérité wul dund. ki def vidéo yor leen vidéo bi. kan la ci. Konkara kaay foofu xaw ma laa sax la foofa la. ah ok. mais kat Pa Pa Maguette xoolal ko may mën a fay. paa ko mburu la moo jam boppam. benn caga bu mu àndal. Mhm. ñàkk a fay danaan maag sama sama buntu kër copain quatre heures matin. moo lay wan ni ko ay caga ñoo leen topp xam nga Akhenaton waxoon na leen ko ay caga rek a leen topp naan waaw ñoo ko fekkee pas que mburu bu verte la xanaa gisul deret bi ni mu doon sottee ko suñ ko defoon ndayam wala baayam wala jabaram wala magam du taxaw naan ay paaka ils sont forts en manipulation c'est des menteurs c'est des manipulateurs du maa ngi wax l'émission en direct ñëw leen buntu seen TV ngeen di daal ay jàpp fa ñëw leen buntu seen TV ngeen di daal déedéet ñun daal lañ dafa doy ñun daal sax dafa doy damay bañ nga génn ñu ne buntu seen TV lañ ko kojewaat maa ngi en direct ñëw leen buntu seen TV ngeen di daal seen ay jàpp xam nga lan la aussi Mara nous sommes pas des des des parents duñu ay ragal aussi ñu war a wax loolu la ñuy wax parce que loolu loolu la ñuy yàlla jox donc il a raison xam nga keroog wax naa ko nee naa leen xam door bu demee ci waar wàcc na mhm. sànq wax na ko may mun a tey dama naan c'est un blessé de guerre ci mhm. champ de bataille am ci mhm. liggéeyukaayam la ko li ko dal dale accident de travail voilà te moom lu mu xaaroon laa lu mu sóoroon la moom li mu Tange wax bettu ko man bettu ma de yàlla seeri na ko parce que may ci boppam moom yàgg na toog di ko wax que xam na ni li muy wax am na ñu mu dérangé am na ñu mu neexul et pourtant li Tange wax ci njëlbeenu kàddoom euh, divergence mën na am ci lu ne mën nañ bañ a bokk diine mën nañ bañ bokk euh, ay bëgg-bëgg ci politique mën nañ bañ bokk waaso mais warul tax jàmm bañ am suñu diggante. Euh, nañu nañu dem tuuti ci temps parce que li ñu dese ci waxtu bareetul si je me trompe pas minutes rek moo ñu dese. Asi ah, bu fekkee am nga question bu jëm ci. mais jàmm jooju nga wax. waaw tant laay laaj na Sénégal lan lañ mën a def ba. lii fi xew nii arrêté. ci non dama dama bëgg ñu ñëw ci. voilà ci kii bi solution yi dinaa ci ñëw. Mhm. bàyyil Asi mu dugal ma benn question rek ci temps yi. dinaa ñëw ci solution yi relation ak sa mbokk yi on voit que tu es tout le temps solo plus solo quoi. Mhm. que ak ñeneen yi. c'est parce que sa posture li ngay wax dëgg la wala euh, peut-être sañ nga wax li nga xam mooy li nga nga wax li nga xamante ne moo nekk Sénégal moo tax ñi yàlla tudd ñu dëggu bokk ak man benn ligne. Mhm. jàmm bu ma sëkk laa sëkk ak ñoom. Mhm. lu ñuy def wax ma la may def wax leen. Mhm. ñi ma gisee nag jàppeel na ay hypocrite. intérêt personnel faruñu fen aw ma ak ñoom benn bokkuma benn kuréel. ok bokkuma benn kuréel. les plus grands nag ñi fi nekk ñi war a wax ak man war a saytu ak man dañuy saytu ak man ñi ma war a waxal maa ngi wax ak ñoom mais les petits laa def ay affaire kuréel ak nangam sangam bokkuma ci dara métier bi ma koy jàng ñoom ñoo ma ko jàngal. ba may investir sama alal di teg di jël ay emploi di ñoo ma ko jox mhm. et j'avais tous les moyens quitter Sénégal dem nekki feneen comme ñoom ni koy defee mhm. et je gagnerai ma vie tranquillement mhm. mais je suis un patriote sénégalais j'aime mon ko may et je défendre les drapeaux tricolores de mon pays et je suis du côté de mon peuple mais am na am na ci ñu lay joxoñ baaraam tuuma que Tange n'est pas un journaliste lan waaye en tout cas man su ma waxee ñu dégg ma

je suis jamais j'ai jamais été un journaliste. t'es pas un journaliste. non jamais été okay. journaliste. ok suivre bu baax. ok mais am na foo jaar ak océan. damaa jàng. Mhm. Mhm. def économie. j'étais mhm. économiste. bi ma jógee économie dem defi communication marketing j'étais dans l'événementiel communication rek laa doon def. ok bi yàlla dogalee loolu ma dem Thiès ñu ubbi Dunia. en quelle année. en ma nekk Dunia Thiès ubbil leen service marketing. ma gis lu bari loo amul ma révolutionné ko. maanaam rajo bi da doon tàkk rek mais amul woon code service commercial. Ah. ay commencé créer événement di créer ay élection Miss di créer ay concours de coiffure ak waa mm-hmm. Darling tout ça exclusivement du publicité. Mm-hmm. bi ma koy def télé bi di dur di jur ma dem ba benn instant am ñoom ñu fay publicité ma ne léegi damay créer benn rubrique bu tudd espace promo espace promo moom la laa indiwaat fii jox ko yenn gaa yi ñu transformé tur bi ci wolof ay seen yi nga doon gis seen TV. da ngay indi ay produits comme produit bi ngay jaay ma ñëw deux minutes boobu dictaphone la woon quoi rajo la woon amul woon télé mosaïque la amoon bu mm-hmm. RDV mm-hmm. léegi ma jël dictaphone enregistré la deux minutes nga promouvoir say produits jaay ko si yéeg ma koy jàllale en moyenne à quinze mille francs par passage chaque jour ma dajale ci lu toll trois cent mille francs di ko dugal ci rajo à l'époque waaw à ñu jógee foofu ñuy ubbi Walfadjri ñu jël ma ma nekk fa man avant fa nekkoon ak El Hadj Diané mm. bi ngay gis mu nekk activiste France la baronne mm. Ndiaga Fall mii nekk tey seen TV il n'était pas animateur fa la doon toog bëggoon def métier animation il peut me témoigner ba après ma jógee foofu léegi pour def agence de communication au lieu que may liggéey ak benn rajo léegi ma ne damay liggéey ak Sud FM di liggéey ak euh, Walfadjri di liggéey ak euh, Dunia. yaatal ko. léegi di wuti samay publicer samay événement ku ci bëgg a publicité man maa yóbbu foofu yor sama agence de communication. quand j'ai terminé après man am benn femme bu fa yoroon benn boîte euh, benn restaurant restaurant bi dafa ma ko nañ ko comme Dakar da doon am fu ay artistes dañu fay joué. Mhm. comme y avait des artistes thiessois amuñu woon fu ñu joué ay ñoom Fulgence ñu fay ñëw di def ay acoustique ay solo ma géré ko ba 2007 ma ñëw Dakar bi ma ñëwee Dakar di def animation fii Océan FM man ak Ndoye Bane ñoo fa nekk ndaw. Mhm. Maria léegi bi ñuy def animation en même temps commercial mais ci biir animation man je voudrais toujours créer. ma mhm. créer benn rubrique bu tudd découverte léegi damay xooli benn nit dem découvrir ko dans animation de trois heures temps. ñu xëy benn jour Mame Less Camara dans son bureau il m'a dit que mais en tout cas il y a des me disent que tu fais très bien ce que tu fais. Mm-hmm. mais je te conseille d'aller faire des cours de journalisme. Mm-hmm. bi ma ko waxee ko Mame man xam nga ni man dematuma ay école di jàng. ci mm. temps ma xaalis ko def. dépassé ko y a des cours par correspondance mi ngi fii Ouest Foire ginnaaw kër Thion qui s'appelait Éducatel il y avait ma dem Suède jógee Suède dem France nekk Télé def fa stage def fa boobu aussi ba tey ci communication journalisme. journalisme ok bi ma paree amu bay gis ma. le amu bay yàlla na suuf sedd ci kawam ba France 24 il m'a pris lépp lu jëmoon ci rubrique Afrique kii xam na ci daal ñu oh. waroon africain yi newoon foofu Château d'eau Camerounais yi Nigériens yi man maa doon retraite information yi bi doon joxee ci journal bi. je l'ai pas publié comme ñeneen ñi nuñ koy ku ci taxaw fenn rek wala wane le talent c'est de comme de l'argent on n'a pas besoin d'en avoir pour en crier partout. mais loolu ban année la woon temps ban année nga commencé woon lii ah. bi ma jógee foofu ma ñëwaat fii def quotidien office. Hmm. dama def quotidien écriture Ablaye Mbow bi ñoo bokkandoo woon benn rédaction. pour te dire que en 2012 Macky Sall bi muy wut réew mi di dugg ci biir àll bi amul journal bu ñeme woon jël communiqué am. Hmm. ministre Abdoul Aziz Mbaye ku Lalla Benjeloul deux voies Sacré-Cœur yi maa doon jël communiqué yi di ko indi bureau di jox Lamine Ndour le rédacteur en chef Ablaye Bow di def yenn papier ñu koy génnee chaque jour mm. ma yor magazine station def rajo ak Ndiogou Diène Abiboulah Fall def ak ñoom kii euh, Cheikh Tidiane Diawo bi nekk RFM mm-hmm. ma bokk ak ñoom ñëpp rédaction ñoom Basile Niane mm-hmm. ñoom ñëpp ñu bokkandoo rédaction ba mm-hmm. ñoom ñëpp ñu defandoo rédaction ma pare Malick Seck ñëw indi fee ñu nekk ci ñuy créer Dakar Actu Cheikh Yérim Seck. Mhm. Tange Tandian Fa euh, Serigne Diagne ñu toogandoo Sadi Etel Espadon créé ko ñu tuddee woon ko Actu Dakar. Mhm. man leen Dakar Actu moo gën a yomb ku jàngul sax mën na wax Dakar nga teg ci Actu noonu la tour bi génnee ma ñëw di liggéey ak Cheikh Yérim Seck mu ne ma comme gars yi seetaanuñu politique day ñu jox quatre articles people par jour. Mhm. ma jógee foofu dem seen xibaar. ak Alioune bi nekk la jamono ji Rapidos. ah mhm. Mhm. ñu jógee foofu 2012 ma teg sama société TGK com ak sama magazine VIP News mhm. boobu jaaraguloo Sen TV Sen TV laa njëkk jaar c'était en 2013 ok mais du ma liggéey ci télé ñu may fay ñi xam na ma man aw patron partenariat ngay bëgg liggéey quoi. ngay ñëw ñu ne co production émission bi la def lii la teg ñu wuti sponsor su amee xaalis ñu su amul xaalis ñu dem si ma def ko Sen TV pendant un an ma ñëw créer sama émission tuddee ko célébrité en ligne. Mhm. lan ci bëggoon wane mu nekk émission bu am innovation. lan ci bëggoon wane. journaliste du moom mooy star c'est l'invité la star. man ma feeñ ma ñàkk feeñ amul solo. ma def ko euh, mhm. ma nekk ci sama kon yaakaar naa ni fii ku fi téye micro wala dafa bind plume. <laughs> peut-être ngay <laughs> créé fii dara ñëw ci kër gi. waaw ah, bientôt xam nga ah, maa ngi may ci doon dox depuis deux mille vingt et un. xëy na nag mu deux mille vingt non léegi rek yàlla na ko yàlla sottal tooguma woon quoi. yàlla ko yàlla ko yàlla sottal yi ma doon eggale. Uh-huh. muy États-Unis muy France man damay def sama formation def sama stage. Uh-huh. si toog jàpp sama jàmm. dañuy dem suñu dernier euh, palier laataa émission bi di jeex El Hadj Papa Ndiaye dugg nga ci sànq lan mooy solution yi. ma yokkal la benn exemple. Ah, yéen a gis photo Macky yi muy lekkee ceebu jël biir këram. yéen a ngi gis photo Macky mhm. bi mu yoree fondé bi di ko lekkee. Mhm. yéen a ngi gis Macky bu mu toogee yor photo journal mi journal bi di ko ubbi ah. Mhm. su ñuy fay droit d'auteur man Tange Tandian la ñuy fay ak Gomis. ñoo ko créé biir kër Macky Sall en 2012 bi mu jëlee pouvoir bi balaa muy dem palais. ñoo fa doon xëy ba ngoon di def image yi di ko génn di ko tas ci biir kër gi. ba ñu fa defee deux mois muy recevoir ñu mu war a jël ministre jour bu muy recevoir Baba Diaw sama kanam bu muy recevoir Abdoul Mbaye sama kanam mm-hmm. bu muy recevoir Cheikh Amar sama kanam mais mais ak relation boobu ak relation boobu nga am ak président est-ce que moom relation dafa am ki ma doon liggéeyal moo ma fa yóbbu moo la fa yóbbu président 2017 laa ko ba ji gis hôtel Bristol Paris 2017 mm-hmm. mais mais est-ce que maanaam euh, ci temps bu gàtt boobu nga ko fréquenté wala boo am koo doon liggéeyal tax nga ko doon gis est-ce que indiwul cofeel ci yow ba tax nga contre gars yi opposé wu non man awma cofeel ci Macky Sall dama am cofeel ci fait ak réalisation yu mu def dëgg rek laa gis mhm. ku gis nen ne nen a ngi nii ce que Macky Sall a fait au Sénégal il y a aucun président qui l'a fait mhm. malgré je suis un PDS de cœur Ablaye Wade moom laa bëgg moo nekk sama xol ok bëgguma keneen ci politique ku dul Ablaye Wade sama maam mhm. jeex na Macky Sall a fait des réalisations loolu lañ ko tegee ci Sénégal mu liggéey. sans mhm. jeunesse Sénégal fi mu fekkoon euh, fonction publique yokk na ci plus de cent mille électrification rurale li mu fi def gis nañ ko. BRT mhm. yi gis nañ ko terre bi gis nañ ko dañ ko doon rêvé stade yi gis nañ ko. Mhm. investissement yi gis nañ ko tey soo demoon Mali bii. barki dem la jógee Mali ma ne Macky dafa war jël booy nekk ci prison yóbbu leen Mali une semaine jox leen ñu lekk ñu naan chaque jour ñu a yombee de. mais arrête mais a yombee moo tax biir capital rang ma génnee Mali su ma duggaatee damay sam damay xonk cuur mel ni ku ñu màkki. latrib bi la bi fi gën a bon mooy sàcc bi fa gën a baax. latrib a pas de circulation bi ma taxawee Jakarta laa jël. Mhm. mu taxaw di négocier ak policier bi 500 mu ne ko 200 laa lay jox. maa wàcc bay policier bi 200 mu tiir mu ne eh toi tu es patron de. ah dégg nga oui. c' est dama wàcc aéroport. te xooy guma sama passeport policier bi fekk ñi ma ci buntu avion bi ne ma fi xam naa lii la gis ak chaîne yeeg mu foog ni star la wala footballeur mhm. ma ci après tu gères patron ça c'est pas de l'escroquerie mais loolu bëri na de mais j'avais honte amul Sénégal ah mais bëri dëkk yu bëri moom laa la wax kon tey dama xam ne ni que Macky Sall gis lu mu réaliser ci dëkk bi te ñoom ñii di wax amul kenn ku ci mën a réaliser lu tollu potu ndaal mhm. ginnaaw Khalifa Sall Idrissa Seck Karim Wade Boubacar Camara ñoon ci ñooñ soo leen ci génnee. Mm. gisuma ku ci xam luy état. Tange da ngaa far rek ah, Tange da ngaa am palmarès si fecc. Mm. waaw dëgg duñ ko laam-laamee. ba ngay taxaw 2004 ci kaw Bercy. Mm. ah Youssou Ndour di la wóolu. da am palmarès tey suñ ko waxee gars dañ lay topp. dëgg la Aliou dafa am palmarès Sadio Mané dafa am palmarès. ñii wax ma ci lu siy seen palmarès. Diomaye Faye amul palmarès yow. ah mais Diomaye xam nga. gars yi moom lañu bëgg def président de. waaw déglu ma xam nga ah. naa mm-hmm. ba élection des mm-hmm. ne la Ibra Degen Maxaali mooy Diomaye Diomaye mooy mm-hmm. Ibra Degen Maxaali. kooku ban yéene am pour nekk président. te kële moo doonoon patron patron sax inspecteur des impôts et domaines kese la. nga bëgg a nekk président parce que li mu doon wax yëpp amul dara lu ciy xalaatam ay livre jaamur lay indi naan solution nee naa amul solution état mécanisme la. foofu la njëkk a ça mu neen neen parce maire bi bu ma nee gis naa ko jël photo Ibra Degen ma xaali moo tojaanga dem ba ko ci poto ndaal naan ko pare sotteeku. dama ne nii yëfu xërëm la. loolu bëgg la rek am na ñu ko tuddee nga toog ba vingt heures yor say njaboot. Mhm. ñu la tëggal ñaari kubéeru ci ñu ko ak koy tëgg. soo xoolee doon ku ñàkk fayda il faut réfléchir quand même dans la vie. léegi Tange très rapidement cinq minutes moo ñu dese te laataa ngay tàggoo dafa am lu Papa laaj lu am solo. dama bëgg nga nga rebondir bu demee ba bi buy wax fitam du dal parce que mi ngi xalaat ne mën nañ ko dab ci mbedd mi wala mën nañ ko koj buntu këram ça devient grave lan mooy solution yi la solution en deux minutes la solution est très simple mhm. dama la bëgg xamal ni que adduna ñu nekk problème de société société mooy lan mooy suñu biir kër foog ñu defaraat suñu biir kër yi ñun suñu jikko yi ñu defal ko suñu biir kër yar man mi jógee ci biir kër gi maay nekk ci télé man mi jógee ci kër gi maay policier bi man mi jógee ci kër bi maay juge bi man mi jógee ci kër bi maay ministre bi maay DG mhm. y a dañu war a defaraat suñu jikko xam ban réew la ñu bokk muy senegal muy benn réew boo xamante ne noorowul ak benn réew ci cent quatre-vingt-seize états yi mhm. li am Sénégal amul fenn déedéet ci ay gàmmu ci ay yeelu maam ak mm. yeelu bàjjan ak ay ndey dikkeeg ay nangam sangam amul fet ñun dong ko am mais valeurs yooyu lañ fi bëgg a jëlee waa déglu ba ñun dong ñoo am fii ñoo am suñu feet ñu fete ko catholique yi am seen feet ñu fete ñu ko mm-hmm. ñun dong ñoo am fii ñun jullit lañu te ñoo dàq dem ci baar yi naan mm. ñoo dàq lekk yàpp mbaam ñun ñoo fi taxaw naan yàlla bëggul nangam ñoo fi dàq njaalo wallaay dëgg la suba ba guddi fañ dañuy njaalo rek kon donc foog ñu defaraat suñuy jukko si suñu biir kër ñu xam société bi lii la ñu jël lenn aussi teg ko suñu kanam muy dëgg la vérité dëgg kenn moomu ko yàlla subhanahu wa taala moo ko moom mm-hmm. sëriñ Saliou dafa ma waxoon benn wax boo xamante ni xaw ma sax kuy sëriñ Saliou mm-hmm. boobu j'étais tout jeune mm-hmm. mu ne ma ku bëri affaire ngay doon ku ñuy dégg fu sore nga moom sëriñ waaye yoonu dëgg bu ko mës a wàcc nee na soo demoon ci dëkk téeméeri junni nit ak benn nekk fa téeméeri junni yëpp wax benn wax benn nit bi wax su dee sa ngëm-ngëm dafa ànd ak benn nit ki lu mu wax mooy dëgg toppal benn nit ki nga bàyyi téeméeri junni nit yooyu. mais lu tax loolu nga bañal ko ñeneen ñi yow. bañalu ma ko kenn de. ah man bañalu ma ko kenn de. ok parce que ñooñu di wax. yow mi ñuy waxal yow xam nga ne dañuy fen kon yow yow yow yow nangu nga ku nekk nekk ci position am. waaw xam nga xam nga xam nga ma ne dañuy fen dama toog barki démb bu déglu RFM journaliste bi invité fa mooy waa jooju du ma tudd turam ki doon naan Maimouna Ndour Faye jëmm jooju Diop Taïf xaw ma xamul rek xaw ma nit la xaw ma nit la xaw ma mbaamu àll xamul may mun a kan yaa Diop Taïf wala xaw ma nit la xaw ma mbaamu àll la Diop Taïf ngay wax xaw ma nit xaw ma mbaamu la parce que man nit dangay ngay waxu nit soo waxul waxi nit mbaamu àll laa lay jàppe hmm. mu ne ko jëmm jooju xaw ma nangam yàgg nañoo saar di ñu fenal hmm. journaliste bi ne ko fen kenn du ko wax ci rajo hmm. journaliste bi wax na fen ci rajo mu teg ci leneen génneel ko agenda ne ko fukki weer ak benn yi ma nekk ci kaso bi yëpp dama recensé une journal yeeg télé yeeg ñu doon wax ci ñëpp mm. muy menacé say moromu journaliste nga bàyyi ko mu continuer plateau bi mm. moom leen na ñeneen ñu ngi leen di menacé ba pare état du Sénégal ak procureur bàyyi ko muy dox mm. sob konaar am na solo xam naa ne eh, temps fi muy waxee jar na solution bi daal lenn nañ jël dëgg jiital ko jël politiciens yi xooj leen ba mu sab gas ba mu suul ñu dëgg leen ci ndaxte kenn si ñoom waxul ci intérêt Sénégal seen la ñuy wax am na solo am nañu am nañu luñ doon am. Mhm. tey dëkk bi soon tàkk ñoom ñëpp billet d'avion la ñuy jël léegi dem seen yoon ak seen. ñoom ñëpp a koy def ah kan bi rek def nañ ko. kan bi booy di rey dama déglu dama déglu Ahmed Khalifa Niass mu ne sama doom ba xaw ma daw français la. Mhm. sama doom Salma américaine la. sama doom nangam canadien la. Mhm. lijjanti nañu seen njaboot bu yàgg. Mhm. te gisoo ci est-ce bi manifestation amee gis nga politicien bu wër ci hôpital di xool doomam. bëgg ñu sacrifier ñun. ñan lay sacrifier le bas peuple peuple bi dañ jël seen responsabilité xam ne ñii di leen naan la solution seen solution poche la ñu bëgg. Mhm. ak ni ñu jaayee Sénégal yokk seen koom-koom dañ dul doyal nag ndaxte li ñu am dëgg dëgg ci alal. tey soo demee Grand Yoff gis këru Mimi Touré ñëw fii si corniche bi kër bii ci 12 dëgg yàlla warul def dara ci politique jërëjëf jërëjëf Tange Tanda c'est merci beaucoup. merci beaucoup doyen tan ça a été plaisir ñu dalaloon ko suñu plateau tey euh, jaajafal ko remercier waat ko encore une fois ci déplacement bi dëkk bi xat na yëngu na terewul ñu woo ko mu bàyyi lépp ñëw bëggee suma frère Zou As ci tenue bi nekk ca Pikine numéro de euh, téléphone am 77 353 25 04 moom tenue yu bari yu Jantal Mara di def ci ambianceur moom moo ñu ci accompagner rawatina incha allahu rabbi ci semaine bi tey moom fii que sama xol neexul woon te tey Papa Ndiaye damaa wéet damaa dugg ci kër gi mën a selaw mm. jàdduñu ci bureau jàdduñu ci waañ bi ma xam ne nag suñu kilifa gi manqué na fi tey Papa ñu tàggatoo waaw xanaa di gërëmaat Tange. di ko mm-hmm. wax ni vraiment sa taxawaay ci Maymuna. Mm-hmm. wane na cofeel. waaw ah. wane na ni jullit nga. Mm-hmm. wane na ni ki nga bokkal liggéey lu ko dal yow la dal. loolu laa bëgg ñëpp di ko def jaay ko tu ngooñ yi ku ci dara dal na jaay ko tu ngooñ ñëpp jóg. parce que affaire moom deretu bopp mooy mbagu borom. ko la ah di remercier ñëpp di wax may Maymuna. a ak jàmm yàlla taxawu la. ak mboolem jullit. jërëjëf Asi may ma une minute rek Pape Maguette si te plaît. Ah, gros bisou à notre patronne rek. Mhm. di ko ñaanal yàlla yàlla fëgg boppam. bon rétablissement may mën a jërëjëf Pape Maguette ci réalisation bi Pape ci son bi papa caméraman léegi moom mooy sama réalisateur préféré jaajëfal nañ téléspectateurs yi ñu doon topp suba ñu dellu si waat ci beneen numéro ambianceur buum dellu ca booy booy ga jaa ngeen jëf may mën a sox saa